Bienvenue sur Salam Vision. ah salaamaaleykum ah mbokku waa Salam Vision eh, mais gars yi vraiment. <laughs> am na koo xam ne de ki sant Ndiaye maa ngi koy séntu benn moom moom war war bokk si dara maa ngi seen waa ji démb rek mu dugg si benn gan bi restaurant lekk ba suuf ba ba biir bi fees man ko ah, saa waay waroon yii saa waay dimbali ma balaa soxna si ñu ko di dimbali ma ngir yàlla te moom man dama am asu man dama am restaurant euh, moo tax fu nekk nii euh, mun ma woon yàlla ñàkk jom ñàkk fay yow mel ni weeru koor nga am plus de cinquante ans ngeen la may askan wi suñu gaal ay tappale yu bëri bu koor gi ñëwee nga seen ku mel ni Ousmane nga ku mel ni Samba ñoom ñu ngi làqatu fu nekk seet fu am yabooy fu am soos raas sa tâche bu bëri àdduna du àdduna nañ gën hey weeru koor yàggul hey weeru koor yàggul ma ne xool ku mel ni së së sëriñ sëriñ sëriñ joojo waaye du ñàkk fayda di ndax jabaram bu dégg ci i tontu e, soxna si mën na dama woon beneen benn ay gàcce duuli kese nañu topp yàlla te ba tappale bii weeru koor weer bu sell askan wi suñu gaal bàyyi di naxate ma ni ma ni e, gouvernement boobu xam tamit bu ñu jógee naan e, politique de jeunesse trois cent cinquante milliards ma ne weeru koor bi nañu góorgóorlu dañu bëgg na sa xale yi ndax nit ñi nañu jaamu yàlla kon yàggul askanu Sénégal bàyyi leen dapane yi bu koor ñëwee nga gis restaurant yi fees ñii di naan fonde ñii di lekk cere ñii di lekk la ñii di lekk laax di tuurale nit ñi ay am estomac seen bi day metti loolu ay kàcc rek la mën nañu góorgóorlu jàmm yàlla te weeru koor yàggul askanu Sénégal bàyyi leen dapane yi oh jaay ngeen jëf yàlla bàyyi leen